المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidinaa wa mawlaanaa Muhammadinil amiin wa alaa aalihi wa sahbihi al-ghurril mayaamiin wa alaa xayri xaadimihil haadil matiin wa alaa man iqtafaa aathaarahum ilaa yawmi ddiin bokk jëlee asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh gannaaw bi ñu sant ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal Cheikh Xadim noo ngi leen ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel bisu tedd bi di ajuma ci barab bu tedd bi waxtaan tey day doon ak jokk wala ak mottali ci waxtaan waxtaan am tàmbali woon ci ajuma jële jële weesu mu jëmoon ci mbiru waalidayn mooy ñaari waajur jotoon nañ ci indi lu yaatu ba tolloon ci leeral ne fonk waajur dañ ko def ci anam wute des na ko def ci muy ci wax des na ko def xol xol muy ci pas pas def na ko na ko yaram yaram muy ci jëf def na ko ci alal alal te mooy ci dundale ñu wax ne ne fekkee ne danga bëgg a fonk waajur ci wax wax mooy ngay wax wax nooy wax ju sedd sedd ak moom wax wax tegtale ak ñeewante tegtale yërmande di tegtale ak feel feel ni mu leer ci ay Alxuraan ba كلكما حولا كريما حولا كريما حولا لينا Ibnu Abbas dafa ci li suma wax wàllu sana nee na dañ ci jublu mooy jëfee njëkk ñaari waajur mooy fonk leen ànd ak ñeewante nooy nooy seen kanam kanam bañ a teengal teengal maanaam bañ leen bañ leen tontu lu ñagas ñagas tontu lu diis bu leen xool xool jàkk léegi sa kàddu mu tiim seen kàddu ñoom ñaar waaye da ngeen ne seen kanam mel mel jàmm ne ci kanamu sàngam nam yi moog moog na mi nooye nooye tamit toroxloo neen noonu loon loon war a mel ci kanamu euh, euh, boo dee boo dee ba sa kàttan yem nag def la nga la nga ñaan di leen ñaan ñaanal waaye lépp nga def nga mu nekk mu nekk afaafa ndax ndax njag njag waay doom mënu ko fay kon doo ko teg teg ci kaw ne ñoo la la meñ meñ ñi ñoom nga jaare walla ñoo la ñoo la waaye da nga ko def ngir nga sa boroom la waajur waajur taxaw bi taxaw bi ñoo daa gàddu sa lor gàddu sa lépp toggoo coono yu metti ci sab yar toggoo coono yu metti ci sa toppatoo rafetal jëmi jëmi ci waral gi gën a mat gën a mat di yaakaar sa dund di mébét sa tey tey ëllëg fekkee gàtt nga xel rek man nga euh, gàdd lool lool lool lool lool tuuti ci moom daa tàmbale yokk wala nga yëg sa bopp waaye nag rawatina yaay yaay mi nga xam ne moo gën a coona moo gën a mën a muñ waaye coona maanaam moo gën a bari ñeewantam yi moo gën a kawe ndax lan tam toggoo ci digganteem a ëmb bi ak naam nàmpal ñàkk nelaw nelaw guddi nga di ko dakkal sobe teg ko lu bare bare bare bari ko moo tax soññee ñetti yoon ci fonk waajur jigéen soññee ñeent yoon ci fonk waajur waajur wu góor te ba ko waajal laajee ne ko ana kan moo gën a yey ci ma fonk ko topp topp taxawu ko mu ne ko sa yaay mu ne ko gannaawam nag mu ne ko sa yaay mu ne ko gannaawam nag mu ne ko sa yaay mu ne ko gannaawam nag ci ñettam mu doon sa baay ummaka summa ummaka summa ummaka summa abaka borom xam-xam yi wax nañ ñetti yooyu dafa màndargaal coono yi yaay sonn ci doom ummaka li annaha xamalatka summa ummaka li annaha wadaatka summa ummaka li annaha radaatka sa yaay njëkk mooy ngeen moo la ëmb la nekk ci ay ci wér wér di te lam yu lam yu toll lépp ci film ba ci ba ci toll dañ naan jigéen ñi wéerut wéerut jigéen ñi wéerut baat bi bàkkal na boppam imbi ga yi xam ne lu ne xaj na ca bakkan xaj na ca bari na ko toll faatu ba su ko weesoo dañuy wax ne mucc na gannaaw mucc na kon tolloon léegi dama mën na mën na ba ci mucc teg ca teg ca nag coono ba ngay sonn naam naam balak boo tag coono yam lay teg dala xel xel beeg dégg dala tax sobeeg yi mel mel ngir bu yàgg yàgg yàgg yàgg loolu loolu mooy ñett ñett ummaka yooyu dool ko dool ca teg sa baay sa baay doon bàyyi waay waajur mooy nasiha laay biire yéen laay biire ñaar waaye ci torof torof ak wegeel ci ñeewant ak màggal te mooy nga dina wax lépp leen mën a jariñ seen àdduna ci seen biir àdduna wala seen biir diine na bokk ci far farata yi an nasiha lil muminin laay biire julin yi ci gindi leen jëm leen ci lépp lépp seen yiw ak ak ak alaxira muy seen biir mooy seen biir àdduna tegtalu war war loolu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne addiinu an-nasiha qaalu liman yaa rasulallah qaala lillahi wa li rasulihi wa li kitaabihi wa li a'immati muslimin wa ammatihim laa jirante laa jire mooy diine wala diine mooy laa jire kon laa jire kan xanaa ci yàlla ak yonent bi ak téereem bi ak njiit yi jullit ñi ak nag mboole seen jullit yi laaj bi mboole seen jullit ñi nag mooy di leen gindi ci lépp loo xam ne seen njariñ njariñ la ca nekk wala seen njariñ la nekk ca den di den di ca loola di xamal ci réer di yaay ci sàggan di leen aaral lépp lépp lu leen mën a gaar ci loo mën dox ci diggante ak moom mooy di leen aaral seen seen der ci ci lépp lu ko yàq waaye day day wekk yi mag yi mag di yërëm yërëm ñoo ci ndaw lépp lépp ci lay giire ci mboolem way jur ñëpp ñëpp la ak den den mat mat na lépp loo xam ne mën na mën naa ñaaw jëm ci ñoom nga mën leen lool rek ci mën a mën lépp lépp la nga mën fexe ba sutural leen ba lépp lépp ñaaw li jël sa mën nga mën ko fekk fekk ko den ñoo ñoo lépp njariñ njariñ loo xam ne mën nga leen ko ñoo si ñoo nga jël di leen ko den jeex jeex lépp loo sa nga mën ko jeex waaye nas nas xaaf xaaf sa tihim nag mooy ay muraad ay imma mooy mooy mooy jiit jiit juriñ ñi mooy di leen topp ci dëgg dëgg ñuy woote den ci dimbale waaye den faat faat lépp loo xam ne ko faat tey loo xam ne mën nga faat leen ko den xamal lépp loo xam dañ caa jotut te waroon caa xam nga caa tax ca war tax te yëgu nga yëg leen ko ci mi ci lu jëm ci mbir jullit ñi tey tax tax xol yi leen di leen topp ak jullit seen gannaaw jihaad ànd ak ñoom ak nag nag di di jaar jaar lépp jàll jàll ci ñoom ak di ñaanal nag yow yiw kon doom man na jël ñaari wajuram man da leen da leen yëpp waaye nag gi rifqin da ko def ci waaye fal ak ñeewante waaye bañ ko ko def nag ci lu mel lu mel ni forcé lu may na may na dañuy lor lor ca lor dañ ca lor nag nag bàyyi mooy wax fi lahuma janaaha kulli min ar-rahma solo nañ jëli ci al-Hasan al-Basri rahimahullah wax ne doom man naa digal waajuram man na ko waar ya'idu bi lutfin ma lam yarda alayhi man na ko waar lu may bu ko defee da nga ci mer fekkee da nga ci mer nag na ko bàyyi iza xataba alayhi saksan fa'an lima mahdurin khalafa na ko bàyyi ngay moytu lor lor mën a joo ci wuti waajur bu dee nag fonk waajur ci yaram yaram yaram mooy ngay nga koy moy moy jiitu su ngeen àndee di dox yow na ci ruuxu bayaan ne doon doon war liggéeyal ñaari waay waay ci loxo loxol boppam bañ ko wakkil maanaam looy def sa waaju ko lu jëm ci sa waaju waaju ko wakkil mooy def mooy def sa bopp bu ko digal kenn na nga ko sa bopp na nga joñ joñ yow ci sa bopp sa bopp liggéeyal sa ñaari waajur ndax du gàcce ci nit mu liggéeyal waajuram du gàcce it mu liggéeyal muallima muy koy mu liggéeyal kilifaam du gàcce mu liggéeyal ganam bu mu jiite mu waajuroon li li donte moo ko gën a dégg diine lu may da ko digal bu mu ko jiitu jiitu ci dox lu may dafa am lor ju ne ci kanam ju mu bëgg a ju mu ko bëgg a toppaleel la ca bu ñu àggee ci jotaay it bu mu bu mu toog toog bu mu toog a kaay bu mu ko jiitu jiitu ci aw ñam bu ñam lekk lekk bu mu njëkk tàmbali tàmbali naan naan njëkk naan su dee jataay jataay bu njëkk toog toog nan nan moñ toog bu mu toog gën a kaay baayam baayam baayam toog waaye itam bu dee wax it bu mu ko njëkk njëkk wala wala wala na wax na wax kaw digalam su dee bëccëg ndox ndox ndox ndox ndox ndox moom wala bu ko jiitu waaye ndox ci su dee guddi nag lañ lañ lañ ci tàmm nga jiitu ngir lor lor na ci kanam nga fanqal kon bokk na ci seen àq ñoom ñaar ñaar bañ leen yéen jiitu seen kanam ci booy dox bañ ngeen jëkk toog bañ ngeen jëkk war war bañ ngeen jëkk lekk ak lépp lépp loo xam ne rek lu ñu def nag nga ba jaaju ngeen tarale ko li li li ñaari waay yoon loolu nga liggéey itam yëpp boo xam xam yeeg yeeg umara yeeg yeeg gaa yu baax yëpp ñëpp képp kuy kilifa ci yoon la nga ci waaj loolu la nga ci waaj loolu ñàkk ñàkk ci dara wax nañ ne ne fam fam góor su góor ànd ànd ak waaju ànd ak as ngóor nu sëñ ma ko wax ne wax ne yone yone sa sa sa gis wa góor si ne ko man hada kii mooy kan mu ne ko sama baaya mu ne ko la la shi ama ama wala wala tasbih lahu bul ko njiit su ngeen di dox wala def def yenn yenn jëf yoo xam ne man man man man man naa daan doon lu koy koy lu bun bun bun bun mën a ñaaw ñaaw mën a mën a mën a mën a yàq yaram wala wax wax wala ko njëkk a a toog ci aw turam kenn bokk na ñaawi njëkk sa waajur di ko wooye aw turam wala nga ko jiit su ngeen di dox bokk na ci ma xuquq muy mooy waajur xoolal baax baax ñi yonent yi alayhi salaam yonent yi nga xam ne ñoo ñëpp ñëpp su alxaan ne nettali na bu daaw waajur daaw ko daaw daaw jaat ci aw turam ibrahima alayhi salaam daa daa daawut waaye bàyyi bàyyi ci turam donte yonent la bàyyi yëfal yëfal la yaa abu laa taabudu cheytaan yaa abu laa taabudu cheytaan loolu Ibrahima doon yaa sama bàyyi bàyyi bul jàmm jàmm cheytaane Ismaayil yaa abu almaat maat maat maat maat maat yow sama sama li li digal yaa abu almaat maat umar yaa sama bàyyi defal li la digal Yuusuf alayhi salaam yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaban xool yonent yëpp yëpp kenn bu ñu wax bàyyi yow bàyyi lay wax njabul si baag yi noonu nañ tegtal ci loolu loolu mooy kenn daw ci daw ci dégg kenn muy njaajaati suñ Sëriñ Tuubaa xam nga Sëriñ Tuubaa tur wi Sëriñ Tuubaa moom li muy tekki mooy ki moom Tuubaa rek Sëriñ Tuubaa mel nga seen daaru wala seen daam daam xam nga sëñ Abdourahmane Lo xam nga Abdourahmane Lo waaye waaye sëñ Ndaam la ñuy wax ndaam mooy ki moom ndaam ndaam rek suñ naa sëñ Mbàkke mooy ka yilif Mbàkke sëñ Tuubaa ka yilif Tuubaa kon lañ daam daam bara bara bara bara sëñ Tuubaa waaye waaye tur wa dëgg dëgg daw ci jaar kon loolu tegtal la ci ne ci ci màggal kon waa doom bu waaye baayam wala yaay yaayam turam waaye na ko waaye baay wala wala yaay dañuy wax ne al adabu an yuxaatiba al fadli wa man xaara bil kunya bokk ci teggin booy won bu baax gaa yu baax yu baax dina booy seen seen làkk dañuy jaar seen dëgg na ci jafe-jafe yi dem ci yaram nga di leen di leen topp ci lépp lépp leen digal digal lu may day day ma yàlla ma yàlla des ci topp kenn koy digal am ma yàlla ma yàlla topp yàlla yàlla ko xaraamal kon waa ji soo li fekk lam digal dugg ma yàlla da war a topp cheikh an solo nañu ci li ci sa wax ne laa taa ma siyatin laa taa ma siyatin lillaahi innama taa fi ma'ruf defal topp kenn kenn ma yàlla waaye topp mu fi amee rek ci lu baax la ñuy wax topp ni ci lu baax ñoom ne jaam jaam sax beneen beneen waaye laa taa li ma fi ma siyatin xaaliq deeful topp topp bi ndeef ndeef ci mooy aji bind ji leen ji leen boole boole yéen ñaar kon du jaadu jaadu du yàlla yàlla ngay topp ni ci ak mooy yàlla su fekkee ñoom ñaar dañoo loru nag ci bàyyee wax wala bàyyee jëf jëf joo ne soo ko jëf dañ ca loro maa wax ji soo ko soo ko dañ ca loro kon waru waru gàll la jëf loolee gërëm looleen bàyyi bàyyi loolee wax wax loolee loolee itam nga gërëm loolee donte la ko donte digaluñ la ko waaye nag waaye nag su ndigal ak ndigal ak teg dajee bàyyi ndigal ndigal jafe teggin waa daana daana ko wax su ndigal dajee dajee teggin na ngeen na ngeen bàyyi ndigal te jafe jafe teggin ñëw na ci boo xam ne euh, am na ci taar yi ci ci ci ci dañuy wax ne yonent sa sa sa masa dem ci ban ban ni am ban ni amr am naaw ngir ngir ay jax jafe yu jafe-jafe yu ñam mu dem dem di jënd ji laata muy ñëw nag waxtu jot li jot noot ko mi mi Seydina bi def ne te nga malaali xaal ngay jiite nit ñi mu ne ko axakay ñu ko li xaamalee ba mu kàbbar yonent sa sallallahu alayhi wa sallam daal di agsi ñi tàmbalee fottu su bi fottu su yi bare bare ak geesu gis si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye mu agsi agsi daal bi sallallahu wa ci mu delloo delloo gannaaw bu ci sàppi si yonent bi kanam jiite leen jiite leen ba julli ba julli gi jeex gi jeex. bañ demee la demee la ne ko tee ñu la ñu la joxe ndigal nga def li ma digal digal. aw bakkan ne ko maa maa kaana lépp mu xaafata an yataxaddama bayna aydi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. daa daa rafet jëkkut ku ñàkk ñàkk sol ne abi xaafata di jiite ko toll ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon faaw nga faaw bàyyi digal jëfe teggin teggin ahadis bari bari ñëw nañ di wane wane waarop leen ñoom ñaari waajur ñëw na ci Tirmidi xadis wax na wax na Abdullah ibn Umar solo solo mu ne dama dama amoon soxna bëgg lool lool li zawjatam uhibbuha wa kaana abi fa amara ni talaqa فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا الله لقطها soxna soxna soxna bëggoon lool waaye sama baay sib sib ko digal ma ma wàcc ko nee na ma bañ bi ma ñëwee wax ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya Abubakar ya Abdullah wàcc ko defal leen sama baay digal kon ab soññee la ci waajur Tirmidhi yi wax na ne xadisun hasan sahih ni nga xam ne nag ni leen jëfe jekk jëfe jekk na mu demee ci baax ni la mooy leen mel ci yées maanaam mooy waajur kabiira la bakkaar mag mag la wuteeg moom ci seen i bëgg ya dagan loolu loolu bakkaar bakkaar bu mag la kon suñ la teree luñ sopp sax ndax ndax suba lu ñuy soppati lay doon wala day wala bàyyi ga warugar la bàyyi bàyyi luñ sol wala warugar la ñëw ne ci xaatima xaatima na na bàyyi bàyyi lépp luñ sopp sopp dañ ko tere luñ sopp luñ sopp ko bàyyi rawatina na lu dagan rek su fekkee dañoo dañoo sib di wéet ñoom ñaar ñaar képp ci ci jëfandiku bu ñu mën a sib daal daal jëfandiku jam ñoom dong warugar lay doom ci doom mu dem du bokk ak ñoom ngir moo ci loolu ñu sib ni ko noonu yëg su fekkee dafa bàyyi lu ñu sopp ñoom ñaar ci misaal dañ ko tere tere ko tere tere ju ju ju ci jàkka ja yu mel noonu fekk dañ ko digal digal ju léegee ci jàkka أشهد أشهد Alltså... ma suñu borom dem bu bu leen fekkee ne la force ci loo xam ne bokkaale ma ca ne bu leen ca topp waa na nga ànd ak ñoom njëkk njëkk àdduna wa saahibi fi dunya ma'rufa nee na na mooy topp ñaari waajur topp ñaari waajur waree su ca des des maa de si sàmmonteeg bañ a dem benn loo xam ne loo xam ne la maa suñ leen digalee loo xam ne bàkkaar kar mag la pour leen ca topp pour leen topp ca bàyyi bàyyi faral leen ca topp farate jëmm misaal misaal waaye nag nag leen topp na ci ñu sopp yi waaye rafet rafet nañ nag bàyyi eh, lépp loo xam ne dañ la ko tere tamit loo xam ne sopp rek la waaye di suñ topp yi bàyyi sunna nag sunna boo xam ne raate bala ndi ko teewee julli mbooloo wala wala bàyyi bàyyi ñaari fajar wala wala wala bàyyi witar ak yu mel noonu su fekkee dañ ko dañ ko laaj ci saxal ma dañ ko ci saxal saxal loolu lañ ca lañ ca topp soo toogee toogee sa waajur it bëgg nañ ngay may may toog gën a rafet baax baax na koy fi mu toog nañ ko léegi léegi soo agsee ci moom it bul toog te joxe ndigalal toog soo toogee bul jóg te joxe ndigalal jóg wax ne képp ñëw ci baayam man daxala abi la yaq bi idni wa man xaada ma abi la yaq illa bi idni wa illa faqad aqahu wa man jalas fi mawdi arfa aw ahsan mimma jalasa alayhi abu faqad aqahu sallallahu alayhi wa sallam nee na ñëw ci baayam bul jekki lu may da ko jox ndigal su jekkee bu lu may da ko jox ndigal lu ko may rek may may na ko ku toog ci barab barab gën a kaay ba gën a bàyyi mu toog ne ba tey ba tey ñaaw na ko njëkk mooy mooy na ko kon fonk waajur dafa war a war doom yi itam bañu bañu ci lu may da ca am ndigal waajuram euh, ñëw na ci xeex xeexlu di ne ne ne ne moo sañ sañu sañu kii kii bu dàgga dàgga naati naati la lu ma ci ndigal ñaari ñaari waajur lu mel ni teel a xaji di nga xam ne faru faru faru islam la xam lay lay doon farata la ku génn génn gi sàkk xam-xam itam su fekkente ne dolli ko xam-xam rek la waaye la la doon xarta ci yow ak sunna ci xam-xam nga xam nag ba noppi tey jëm jëm moom moom fekkee fekkee génn ko mën a xam war warugal la génn wala leen leen ca buñ la ko tere wala leen ca topp waaye su fekkee ne dolli ko xam-xam rek la rek la da nga war a topp mbokk ñu xam ne waajur ku ko yàlla yàlla may muy dund mel na am nga xéewal bu rëy goo xam mën nga caa dabu ngërëmal yàlla am bari na kook ne woon na géej waajuram dellu si ba mu sàmm sàmm ngërëmal yàlla ba ba ba am daal lu ci yéene xam ne ne géejoon mu dellu si yow mi ko am ngi dund nag nga xam ne am nga xéewal rëy goo xam mën nga caa dabu mën nga caa dabu ngërëmal yàlla nga sàkk ko ca waajur mel mel sa muur naa doon tàng tàng ku naqar deret deret waaye lu mën a doon yow fexeel ba la nga la nga la nga ngërëmal nga am ko ci moom dafa na ci ne men su ma dafa dafa gërëm gërëmal waajur aj mer mer ci mer su waajur meree yàlla mer kon nga fexe sàkk sàkk gërëm gërëm ci deen taxawu féete leen lépp fépp na nga xamee ne ma ngay doon gone gone gu ndaw dañ lay lay fii di la taxawu nga taxawu leen noona waaye su fekkee dem nañ dem nañ ba jóge fii ba tey teewut nga mën a mën a dabu dabu euh, lu baax ci ñoom sa si dama lu bare bare bare bare nga xam ne ñoom mën na ne sàkko euh, lu baax ci waajur mën a mën a fonk waajur nga bàyyi ko mooy di ko ñaanal ñaanal te di ko sàkku jéggal saa boo xam ne jaam bi bàyyi bàyyi naa ñaari waajuram fi nekk fi nekk mel mel dagg dagg na wërsëg wërsëg ci àdduna dagg na wërsëg wërsëg a joxal jox sarax sarax lu lépp lépp dana ci moom waaye gis ma daal lu ëpp njariñ njariñ jéggul ko yàlla daan su ma xamoon xamoon na lu gën lu gën lool naa naa li ko digal mu koy dëggal dëggal lu saa sama waxoon ne inna la yar la yar la yar dara فيقول يا رب أنا لي هذا فيقول باستغفار والدك naan léeg-léeg nit nit suñu borom yëkkati dara jaar jaar jam lool ceeb ceeb aljan mu ne sama borom fii la li li dara ju mag ji fan la ko jële mooy xanaa jéggul la sa doom jéggul yàlla moo tax doon nañ ci xadis ne man zaara xabra aboohi al imaam ci jumaa kaana baaruran ku saxal ci siyaari waajuram wa faatu saxal ko aju aju nekk fonk na ko maa de maa de jëfe na ko njëkk ñëw ne ñëw ne yaaba tey salaasu wax ne ma ala ahadin ida arada ay saddaqa bi sadaqatin an yaj'ala ala ahli walidayhi ida kaana muslimayni fa yakun li walidayhi ajraha wa yakun lahu ajrahuma wa yakun lahu mithlu ujurihima min ghayri an yukhsira min ujurihima shay min ujurihima shay nee na jaadu na baax baax na kuy saraxe na ko saraxel waajuram waaye sax na nga sarax bi sama waajur laa ko yéene dana dana am yoo xam ne sarax sarax bu nag yow yow joxe nga am nga am yool sarax am fekkee da nga ko sarax sarax sarax yow donc yaa am yaa am yool yool waaw soo ko saraxel ne day am yool sarax am nga am yool sarax mu na ko yéene yéene waajuram ak di wéyal seen yëpp yëpp li ko di fonk seeni xarit di leen taxawu ndax ndax ñëw ni ñëw ni ci sax li mu ne inna amara birri yasila rajul li abi abi baada an yuwalli al ab nee na bokk na ci li gën a baax ci xeeti baax yi nit ki di jokk jokk sot sot bàyyi mbaayam gannaaw mbaayam xam ci tukki wala faatu waaye bu ne min abaril biir min abaril biir am na min abaril biir am na yëpp bu ci nekk ci nekk solo nañ solo nañ in abaril biir silatu mari aw li abi abi maa dañu yoole ba tey ba tey lool tey lool mi ngi yow ci làpp làpp boo xam ne abu daaw solo solo dégg nga ci Abdoulaye Omar itam wax ne dafa mas a ñëw ci abi an daf daf dañuy ci abi abi mu wax ne damaa ñëw Madina Abdullah ibn Umar dikkal ma laaj ma ne ma lu tax xam nga lu tax lu tax tey ma seet si la ma ne ko déedéet ma ne ko nii sami sami rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul man man xaar ay yasil aba fi qabrihi fal yasil ixwaana abi ba'dahu wa innahu kaana bayni bayna abi Umar wa bayna abi abi xaan wa wud xaan wa wud ahab ahab an asila dalik moo ko damaa dégg ci sa sama wax ne képp bëgg a siyaare baayam nekk baayam baayam ci bàmmeel na siyaare ji xarit baayam wala soppe baayam ay mbokkam te sama sama diggante sama baay ak sa baay kat dafa amoon ak ak ak mbokkoo ak ak seen diggante ma bëgg bëgg nag loolee ñëw na ci xaatim ba tey ci la ñuy jeexale ne nit ki man mën naa dabu ngërëm lu waajur gannaaw bu faatu ci julli leen leen lil ak sàkku leen jéggal wees seeni kóllëre jokk seen mbokk teer seeni xarit eh, caadi wax na Abdou Wahab eh, eh, moo ko solo jël jël jël ko Malik Malik Malik Rabiat wax ne ne julli ko lay doon ñaari ñaari yoo xam ne da ko julli julli guddi alxamis gannaaw gannaaw timis diggante bi ak gee jàng jàng jàng bu ne Faatiha ayatul si juróomi yoon lixlaas fukki yoon xaalal naa su ne juróomi yoon su sëlmalee mu jéggul yàlla ñaari waajuram fu yoon yoon juróom julli ci yoon ci yoon saa saa daal def daal yëpp yëpp jox xaddi yoon boobee loolu da cee jot loolu loolu la borom xam xam net net li ko kon daal ñu xam ne kon nit ki na na xar ba bu bu bàyyi bàyyi dund na wut nekk nekk nekk loolu mën naa dem ba jigéen mën naa dem ba nekk ba ba nekk baar baar donte xaq ah, ah, la woon fi waajur waajur di dund yan suñu boole dimbale dimbale wala defal defal fi yëpp xiir nu ci nu ci saxal nu ci te def na def dégg taalibe taalibe sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa nangu nangu taalibe salaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh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 الحمد لله الذي أحلنا باتباع أعلم العالمين محل النفاق ونهانا عن ارتكاب البدع المحدثات وأمرنا باتباع السنة في كل الأوقات وشرف المتبعين للسنة تشريفا ونسأله كمال اليقين وألا نقطع العمر آمالا وتسويفا أما بعد يا عباد الله اتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا من يتق الله فقد فاز فوزا عظيما وإن تقوى الله تبيض الوجه وترضي الرب وترفع درجته وتوقي مقت الله وعقوبته وسطه عباد الله أكثروا ذكر الله فإنه من يصلح بينه وبين الله يكفه ما بينه وبين الناس ذلك لأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه ويملك الناس ولا يملكون منه وهو الذي صدق قوله وأنجز وعده لا خلف لذلك فإنه ما بدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فحافظوا رحمكم الله على كل واعملوا من الصالحات ما يرفع عنكم العذاب ويحييه نفعنا الله وإياكم بالأنعام وبحديث النبي الصادق الأمين الحمد لله الذي أمر عباده بالتقوى وصالح العمل بالتقوى وصالح العمل ووفق من شاء وأضل وخذل والصلاة والسلام على سيدنا محمد داع الرشد والفلاح وأصحابي الفائزين بغاية الهدى والصلاح أما بعد يا عباد الله في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن أصفق من النار لها عن الشهوات ومن ترقب الموتة صبر على اللذات ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات ومن أراد النجاة من الأزمات والوصول على على المراتب وأشرف الدرجات وليسرا من الصلاة والتسليم على ملاذ الورى وسبيع المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرة واجعلنا يا مولانا من المرمومين ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا أحدا من الأشقياء محرومين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يغفر لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبله في مبين وآخرين منهم على ربهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وذو الفضل العظيم ما بل لهم التوراة ونعلم كما كما كما كما كما والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ايها الذين امنوا ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا ان كنتم صادقين ولا يتمنوا ابدا ما قدمت يدي الله عليم بالظالمين قل ان الله يتمنون فانه لا لكم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 Amen. تذهب الغاشية يوم خلقها خلقنا سواه تسعى من حال تسقي مياه ليس لهم طعام إلا لا يسقي ولا لا وجوه يومئذ ناعمة تسعى راضية في جنة ملية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرعى وأكرم ونعم مصروفا وسعى به مقرها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كنزبت وإلى الأرض كنزحت فذكر أن أنت مذكر لست عليهم بسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله عذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله Allah السلام عليكم